moon nañ ne lu mu mën a wax itam mooy doon ndax waxul naxee mbaay ci euh, bis bi mu jàppoon suba ba noppi daal di koy jiitu daal di def euh, déclaration ni tas na assemblée. Mhm, euh, tappale kay am na ci du lu bees ci politicien Sénégal bu toog ci nguur muy ñoom di Macky di Ablaye Wade képp ku falu bees rek di nga jëfandikoo ay tappale ba def say pexem politique parce que Diomaye lui-même dit euh, qu'il a fait régner l'ordre de la loi sur l'ordre politique. Alors que lui-même, euh, il a utilisé de la, la, loi pour faire de la, de la politique. Ousmane Sonko Moustapare, déclaration de politique générale, Diomaye Guéné Nokoti, euh, Sauvé Nokoti, est-ce que Sonko de demancer de déclaration de politique euh, générale qui Adinam, Bisbou, euh, Passef, appelé député ci l'Assemblée nationale est ce que Sonko donne donne président l'Assemblée nationale comme même DPG qui a xëy yalla rek xam mais euh, li ma bëgg a euh, junj mooy euh, le le le volet communication président de la République dem na démb mbuur lu baax la waaye président de la République def adresse à la nation officielle te tuddul bakkan yi rot ci géej gi ak ci yeneen fànn l'accident yeeg yooyu près de cent morts en en une semaine ci ay sénégalais yu dee ci anam yoo xam ne lu mënoon ñàkk la ngay démarrer ce discours tu t'inclines à nouveau sur la mémoire de ces gens-là, mais non. Ça, c'est euh, un impair du point de vue de la communication, mais euh, daf ko la politique parce que li fi politique donc on va surveiller ce qui se passe parce que nous, mbir la judd institution assemblée nationale dissolution nous wax vérification des comptes publics

côté justice ak vérification des comptes publics acte acte ak ci euh, côté euh, euh, politique leen mooy nguur gu bees gi moom loolu amatul luñ ci laam-laamee lu neex Sonko rek mooy am Diomaye doxal ko